lan moo ko génnee góor waaw góor yi rek laa doon xas soo su ma tasee góor yi ñu ma doo bàyyi doo waxu jigéen tey mm-hmm. maa ngi leen du ma wax jigéen tey dara mooy mm-hmm. ni Abikeelule Abikeelule lame mala malo yamani shiri kana malo nalo ye ndita ke dolan konte ke usi kon kanam malum faalu yee mooy comme euh, góor tey bu ma rusoo suma kalamee mbokkale nawle yooyu mm-hmm. because am na kuñ ma mee man a bu ma ko ko yoo laal la bu ma rusoo daal mm-hmm. waaw comme gàttal ni koo xam ne du dee sarama mooy koo xam ne ak lambema mooy koo xam ne daf dee rus koo xam ne dafa am kersa kersa waaw rus luy jël gàncax yaa ngi gis waaw